jëkkëram tamit ku baax la kenn ñàkkul ma rek maa ñàkk sama xarit la metti na ma tur benn la ak doomam ak seex jëkkëram jëkkër ji mu ngi ci kaw jabar ji mu ngi ci suuf maa ngi koy doog gis sama dëkkandoo la femme femme bi ak sama sama voisin la quoi dëkkandoo la le temps depuis xale ba leer presque ñoo dëkkandoo

xale bu yaru bu teey sax bu réglé bu bu bu boo xam ni man mii daal bu daan wax ak man mosuma mosula jàkkaloog man di xool bëtam du jàkkaloog nit di ko xool moo tax affaire bi bu amee da lay jaaxal sax ni nu mën a demee waaw nu mën a demee ak xale bii ni mel koo xam ni nee doomam sax mosu ko dóor waaw mosu jël doom dóor ko doom yi mu jur mosu leen a dóor ba démb rek nee nañu yaayam nee na démb rek mi ngi fob doom ji ci guddi waaw doom ji kii tey da ko bëggoon fu mu jëm moom la yor fu muy dem da koy fopp fopp da koy fopp ànd ak moom kon daal ñun affaire bi ñun daal mënuñu cee wax dara xaar ba xam lan la ndax ñun xamuñu lan la niñ ko ngeen ko gisee nii la lañ ko gisee ni ngeen ko déggee lañ ko déggee mais moom avant lii di xew moom jikkoom jikko ku góor ku jàmbaarale woon tamit ku daan dimbale yaayam la kii ba mu juddoo léegi mosuñoo gis benn problème man de mosuma dégg benn histoire am mosuma dégg benn histoire am buy wax sax buy taxaw fii di wax yow doo ko dégg ndax yaram waaw ku nangoo liggéey nag kuy dimbali yaayam jàng rek nag waaw mi ngi ci concours yi mi ngi ci lu ne ngi koy def am na ñaari ñaar ñu ñaar ñu góor ak benn bu jigéen bi gaañu te jigéen ki fer na mi ngi soog a fer te jigéen ki mi ngi soog fer mi ngi toxu si fii booba yor na jabar yor ay doom booba doom yi yëpp foofu lañ juddoo waaw dañoo amoon fan kër bi ñu amee kër ñu jaay ko waaw bi ñu ko jaayee ñu jox leen kër ñu am beneen kër bu ñuy tabax kër gaa nga fële mais kër ga fareegul borom kër ga nga xam moo këram ñëw dëkk si fii mais kër ga am nañ beneen kër boo xam ne ñu ngi am fële ñu ngi ko loolu moo leen indi fii waaw yaayam kak moom moo ma dëkk kon dina ko tiis no yaayam kay nekkatu nit ma nga ne kenn xamul lu mu niru waaw ndax moom fi nekk moom la dese ñaari doom yu góor la amoon kii ki fi des ak ki gaañu waaw ñi sa ay jigéen lañu waaw ba amee sa doom ba mu war laa fajal dem nii xam ne dina la metti ak demin bii ñuy wax dina la metti te xamagoo lan la xamagul yaayam xamul lan la ñun ñi xamuñu lan la nii ngeen ko dégg daal lañ ko déggee